بسم الإله ما ندل جاج فيكو باخ يلا فجل نواج لولا وعند ذكر صالحين تنزيل رحمتي قايو باخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahirrahmanirrahim Boki rahim mbokki boki yi mbokki talibé yi télévision Ansar TV mo ngi leen di nuyu di len ziyaare di am mbégte ci dellu si plateau bu am solo bi niñ ko baaxoo defee xam ngeen ni nag lii di muharram bu xel yépp am ci lum dem xeli ci limi dem moy bis bi nga xamne ne lañ baxo defal jàmbaari l'islam ja serigne may amar di jëm jo xamne dundam gep da ko passé ci liggéeyal l'islam waye liggéeyal cheikhul khadim ba laq ngeureumam bim fi bayiko ko taawam bu baax ba serigne mam gumba diko wotel bi sub ñaan ba momit fekkiko ci liggéey rafet bim fi liggéey mom serigne mam gumba mom rakkam ju baax jii di sëriñ maam ma amara wuutu ko moom it teg tànkam fa nga xam ne fi la magam ju baax ji tegoon tànkam muy sëriñ maam gumba woyal bis bi ren nag ni ma ko waxee muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru muharram dëppoo mercredi 24 juillet 2024 ñu koy defee fii ci kër sëriñ May Amar gi nga xam ne moo nekk Touba Darou Khoudoss ñaari étage ñu nekk ci wàccaay ci kaw loolu nag ci lañ ubbé suñu émission bi ci dalal jëm jo xamné ne kenn du ci kër alaaji Serigne may amar muy Serigne gorulum, Serigne Baraloum mangi ngi jéggulu Serigne Baraloum mui mi nga xamné kendo moy Serigne Moussa Loum momit kenn ci kër alaaji Serigne may amar ngir liggéey bu rafet bo xamné liggéey nañ ko fi ngir tarbiyé go xamné tarbiyo nañ ko Serigne may amar mi ñu fas yéene sëq ak mom jotaay bi nak laaj ko li nga xam ne tey jii xam na ko ci jëmm ju mag jooju nga xam ne mooy sëriñ may te bér na ma ne lépp loo xam ne mi ngi koy fi waxe lu mu teewee la lu mu teg baaraamam la kon ni njëkk a def mooy sëñ baara dañuy sàkku nag kon nga nuyu mbooloo mi nuyu ñi nga xam ne ñi ngi lay teewlu ci seen télévision bu am solo bii di Ansar TV ñu door a dugg ci waxtaan wi comme kàddu waagu noonu mën ngaa nuyoo bismillah liggéey rajo bi di ñaan ñu jërëjëf sëñ Baara ci nuyoo yu sell yooyu nga xam ne nuyu nga ko ñii safoo seen télévision Ansar TV di ñu teewlu ma fàttaliwaat ko ni ma ko waxe woon léegi yéen a ngi ci seen wàccaayu màggalu alaaji sëriñ May Amar giñ ko baaxoo defal ci fukki fan ak juroom ñaar ci muharram ñu nekk ci waccay wi dalal ki nga xamne moy serigne sëriñ baara luum nekk taalibe bu mag ci keur alaaji serigne may ñu bëgg sekk ak mom waxtaan ngir lu ci jariñ taali serigne bara yow lu lula lu boole won ak alaaji serigne may ak lo xencoon ci mom ba tax nga ñëw ci barab bi ngir saku barke de barab bi sama ko mo ñu di ko wax bàyyi Moussa Loum moo fi doon murit joxe woon nag beneen nag ci jeneen daara la ma joxe woon ñu wax ku ñuy wax sëñ Thierno Alsaan wala mu njëkk a joxe mu ñu njóobeen ma nekk foofa am yàgg mu ma foofa indi moom moo moo fi jiitu moo ma jëlee foofa indi ma na ba ma tax ñëw kër sëñ may amar di fa sàkku si baax la ma fa jàngoon ak la ma fa xamoon ba ma dikkee ma ko takk ba mu jëkk ma teg ko fii xool ci lim fi ma dugal ba ma bëgg a xam fi ma dugal fan la looloo taxoon mu fi indi mu few waaw sëñ Baara bi nga ñëwee dëkk bii di Naba hmm. maanaam da ne sa wayjur yi nga xam ne mooy Serigne Moussa Loum ah. moom moo la indi ci wetu maam sëñ May Amar ah. sa wajur woowu nak melni ne bari na lu bari bari lo xamne mom avant ngay ñew mom xamé nañ ko ci lu liggéey ci kër gi lool loñ ci mëna fatali ci sa wajur di sëñ Moussa Lo ligé sëñ Moussa Lo ci kër sëñ may amar mboolem luy ay bant wala neek ñu ñëkkon ci Touba bu fi taxaw sama bay moko fi taxawal taxawal ko mbacké taxawal ko naba génn nekk ay neek neek danaan ndet jabar sëñ bi def ko liggéeyloo kooku nag liggéey la sëñ may liggéey boo xam ne moom toog naa sëñ may ni su ma doon sëñ Tuubaa ma ni Moussa mooy sama maam Cheikh Rabi Fall loolu moom toog naa sëñ may wax ko kon liggéeyam ci moom am solo la liggéeyam boobee nag ci laa ànd moom sama baay di liggéey ba mu wàccu liggéey ma topp liggéey boobu ba léegi si mu mel ne kon sa waajur woowu dafa nekk ci kër gi ba ba wàcc liggéey moom ci ci kër sëñ May. waaw ah, hmm. moom. fi hmm. muy wàcc liggéey ci kër sëñ May. Hmm. ci kanam sëñ May Amar la wàcc liggéey. dafa feebar. ñu dikk ñu ne ko ana mu dikk sëñ sëñ May mu ko sëñ bi daa dem Dakar. mu ne sa feebar bi yaa ngi ci mu ko waaw. waaye bi su ma sëñ bi ñëwee rek dinaa wér. dinaa bis bu sëñ bi ñëwee rek sëñ bi ñëwee mm-hmm. dinaa weer ñu toog ay fan sëñ bi ñëw mm-hmm. bi sëñ bi ñëwee ñu jël oto teg ko ci mu jógal boppam dox mm-hmm. bañ ko ne jógal ñu yóbbale ki sëñ may daa jógal boppam dox moom yeggee ba Mbàkke daa wàcc cal boppam dox ba egsi fi kanam sëñ bi sëñ bi ni ko Moussa yow yaa ngi ci feebar bi ba léegi mu ni cell taw diir sëñ bi ne ko toogal tontuwu ko rakkam jim àndal moo ko tëx tëral ko mu daan mu tëdd mm-hmm. bi ko tëralee bu mu tëddee bu mu no bu mu eggee bu mu ko eggee su la nekk ci mbiri dem mm-hmm. sëñ may tiim ko jàng saar yu yaasin mm-hmm. ba ca sóorut mu noppal mu ni cey mm-hmm. Moussa Miri bu ma doon sëñ Tuubaa mm-hmm. ma ne mooy sama maam Cheikh Rahma Fall mm-hmm. nga xam ne kon dafa mel ni moom sëñ bi la doon xaar sëñ bi la doon xaar ni mu ko waxee woon rek waaw ni mu ko waxee woon daal sëñ bi ñëwee rek ma wér bu ma ñëwee rek mu dinaa wér ci kanamam waaw fii ci ginnaaw bi sa waajur wi nga xam ne mooy sëriñ Moussa Loum làqee ngërëmul sëriñ May ba bàyyi koo hmm. kon yow ci nga jaar fi mu doon jaar daal di fas yéene yow it laxasaayu topp ci ginnaaw sëriñ May léegi nag euh, ñu bëggoon sa nekkiin ak sëriñ may maanaam xam naa ne nekk nga ak moom ku bari waaye fiñ ci gën a xuuse mooy dëkk bii ñu naan naba foofu moom yaakaar naa nekk nga fa ak sëriñ may lu bari loo ñu mën a nett li ci nekkin bi nga xam ne yow nekkoon nga ko ak sëriñ sëñ baara nekkin yi ma nekkoon sëñ may de li ma ci xam bari na li mu ci gis li mu ci def ma gisit bari na ndax moom de nekk yu nekkoon nekk yar ba ko sëñ Tuubaa yoroon ci loolu la noon yar noonu ci mm-hmm. doxeen woowu la doon dox ak moom mm-hmm. doxeen woo xamante ni ci lenn lenn lu ci rang mm-hmm. waral lu ci am lenn lu ci am ay jafe-jafe ndax sëñ may day ni ko sëñ Tuubaa yare noonu la yare njabootam ci leen ma gis yoo xam ne dama cee teg sama bët ndax dañ naan toog mu naan sëñ Tuubaa nee kooka moom lool mom len tegal fofu sa loxo man da ngeen daan toog sëñ may naan leen sëñ tuba nee na daanan ko wax loolu ci naba toog naa mu leen ko wax li ca tege mooy ak njabootam yar bu mu leen yar jàngal na leen yar jàngal na leen lépp diine ak lislaam te sëriñ may amara gis naa ci moom fukk fukk laa la wax muy juróomi mooy juróomi yi ko sun borom sant muy juróomi julli. maanaam gis nga ci sëriñ may fukk fukk. waaw fukk yooyu yan la. fukk yooyu mooy juróomi julli. nga xamante ni moom. Mhm. sun borom santaane na ko. juróomi julli. juróomi julli. waaw la ca tege mooy gis naa mu yor ay soxna. Mhm. yor ay rakkam. Mhm. yor ay doomam. yor ay ba jarbaatam. yor ay dongaam. ci mhm. biir benn benn benn kër. ci benn ci biir benn kër. ci benn kër gi ginnaaw bi naaw bi mu defee farata yi suñ borom yi. kon juróom yi moom seedeel nga ko. moom seede naa ko ne. Mhm. juróom moom. Mhm. mosuma cee gis dara dara dara lu ci manqué. lu ci sooxe lu ci sooxe. wala lenn loo xamante ni am na ci luñ ciy labbatal. wala am na ci loo xamante ni nii. ma na ko caa wax. sëñ may sëñ may. waaw. loolu moom mën naa ko ci seere. mën nga koo seere ci moom. waaw. yar nañu. jàngal nañu. Mhm. jàngal nañ doomam. Mhm. teg nañ ci yoonu siraata mi tax mhm. te ko sëñ may yor. mosoo koo dégg ci benn lixoor wala nga dégg ci benn histoire wala nga dégg ko ci lenn. loolu jàpp boppam. liggéey jàpp sa bopp loolu la mu yor. leneen li ci des ma la koy laajaat maanaam ki nga xam ne mooy sëriñ may. Hmm. dëkk bi nga xam ne moom nga wax léegi muy naba bu ngeen fa nekkee liggéey bi moom nuñ ko daan organiser maanaam daan duñ doon liggéey boo xam ne da leen daan soññ ci liggéey bi wala da ko daan ànd ak yéen wala nu daan demee daal liggéey boobu bëggoon nañ koo xam moom sëñ may yi tool yi ñu nekkoon di ko di ko root di nekk moom ci dëkk bi liggéey bi mu daan liggéey amul benn liggéey boo xamante ni raw raw nañ ko ci raw nañ ci soxna yi ndax wax ji njëlbéen gi mooy soxna yi nga xamante ni ñoom buñ masaan liggéey ñooy yor mbirum añ yi ak reer yi ak ndékki ñooñu ñi ko doon yoroon muy bàjjen màggat ñoom ñi nga xam ne ñoo daan wàllu liggéey wàllu wàllu lekk mosuñu mànkal wala ñu yàkkamti leen wala ñu tardeelu wala ñu ciy lenn loo xamante ñoom wàllu woowu mm. Mm. taxawaay boobu ñoom jigéen ñooñu mm. taxaw nañ ci taxawaay bu mat sëkk moo xam ne mosuñu ci soññ ci dara mosuñu ci yàkkamti ci dara sëñ bi mosu leen ci soññ mosuñu bëgg a xëy naan kafe mu war a dem tool ñu ni kafe gi daa naaj mosut am wàcc añ war a jot añ añ fekk ko mu taaj mosut am mosuñoo war a reer reer bi jot ñu a am ñëw mosut taaj reer bi nag ak añ bi ak kafe gi lépp ci loxoy sëñ may amar moo koy tibbaate nun gone ndaw yi fukki dab lañu woon ak ñaar fukki dab yooyu ak ñaar dañ koy tib da koy tibb ba mu egg bu dee ceeboo bu dee lu mën a doon rek moo koy tibbal boppam ŋàbb loxo tibbaati ndab yi bu dee cere la moo koy ŋàbb bu dee lu mën a doon rek moo koy ŋàbbal boppam lañ cey war a teg ak lépp moo koy tegal boppam ci loxoom bu noppee ni fab leen ndab yi bu fabee ndab yi ba noppi day wëlbati ci su ci donga yi sukk ci ndab yi sukk ci lay sukk ci donga yi ñun ñi sukk ci ndab yi day wëlbati sukk ci ndab leen moom sëñ may sëñ may am bu day tourné rek loxoom xaj rek. Ah, rek mu dugal ko. loolu kii man la sëñ Bara loolu. Mhm, mhm, mhm. musuma gis. muy berlu ay togg. ku ni mas naa koo teg bañ man Bara. benn yoon laa ko mas a tege bët. ñu toggal ko laaxu bisaab. toggal ko ci néeg jox ko ci dib bañ ko génnee la ca dañ ko génneem teg ko mu lekk waaye musuma gis sëñ may tiim lu doo ngay tiim musuma ko gis. Mm-hmm. nga xëy ne kon daa yemale woon ñëpp rek. waaw ah, daa yemale woon ñëpp. Mm-hmm. amut doom. Mm-hmm. amut sakk. amul kenn ku mën a wax ne sëñ bi daana dem ci lenn lépp. benn cër la moom lépp da koo defal muy benn. moo tax may la juróom yii. gis naa sëñ may ŋàbbal ko boppam te sooxewul muy ay waa këram ay rakkam ay jarbaatam ay dongaam gis naa ko lii mu nga baax mm-hmm. te dara sooxewu ci dara sooxewu ci waaw dara ndax ñëpp da leen a boole yemale leen mm-hmm. ci kenn ku muy waxal di ci kenn ku muy defal di bakki mm-hmm. moom loolu moom mën naa ko ko seet ba tey mu mel ne li nga fi fàttali am na solo mm. waaye yéen jikko la leen daan dénk moom ndax moom ku ko xam-xam ne moom ci liggéey ak jaamu yàlla la nekkoon Ah. ndax da ngeen a yemoon ci liggéey ci tool yi rek waaye ndax daan leen soññ ci jaamu yàlla géeg yoon yi ci des yooyu sëñ baara wa ah ñun de daana daan moom kay li mu koy sante mm-hmm. bu julli jotee dinañ julli jiite julli mm-hmm. timis mm-hmm. bu gee jotee dinañ jiite gee bu tisbaar jotee dinañ jiite tisbaar ni mu nu ko sante ci waar yi ni noonu la ko sante ci julli noonu lañ ko daan doxale nga iya. xayna bu ngeen mësa nek ci toli yi ba waxtu julli fekk leen ko da ngeen di japp yéen ngeen julli ndax xamna ne mom ndigalul suñ borom li mo jitu yep digal mu door ci tek leneen li nga xamne nak moy bay bi mooy ah, ta mel tamit walum bay gogo ah. ndax yeen donga yi rek yeen daan bay waye ndax ak jabotam bi daañu ko and ak yeen wala manam njaboot bi nak mhm. ñi nga xamne ni bobu ño ci man mhm. dara mhm. muy seigne Cheikh ak seigne Mama ñoy doom yi nga xamanteni ni ño ci man moom nañu àndal liggéey bi mhm. waaye mboolem yi des mhm. ak sëñ Paate mhm. ak sëñ Fallu ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci waar wi te ñoom sëñ Paate ak sëñ Fallu ñoom léeg-léeg da ci dem ba mu yàgg ñu toog wala jëlee waaye sëñ Seex sëñ Maam ñoom dañ ñoom fu lang lang nañ lu ñu daj dañ lañ ko seen liggéey seen coogaay bii nag dañu koo ñaq dañoo liggéey seen bàyyi moom lu wér lu ma mën a teg baaraam ñoo xam ne ñoom bokkuñu ñoo xamante ni dañuy laam-laam lekk làmm la ñoom dañoo liggéey seen baay bu wér ndax nun ñii doon liggéey ak ñoom ñoo àndoon ak di liggéey muy lu wér loo xam ne moom ndax jamono yooyu booba sëñ ma fi mag te daa jàngi boobu ñëwagul muy jamono yi nga xam ne sëñ maam jàngi ne nag ba ñëw fekk nu ni bay baxaw lan fekk sëñ maama ñii ak sëñ seex ñoo daan ànd ak ñun guddi ak bëccëg mm-hmm. ci sëñ kër sëñ bi laa gis ku jur doom ak amut doom amutub taalibe amutub xar amut musuma gis ñoom seex ñoom nii seen yaay yii seen wala seen kenn ŋàbb dara romb nu dem wuti kër sëñ ñoom seex it musuma leen a gis ñu duggee ci jóge ci daara ji dugg ci seen néegi yaay di wut lu ñuy lekk mustam waaw mu mel ne sax dañu nett li ne ñoom ah. euh, da leen daan wax naan leen suñu waxee ñoom mu ne leen yéen seeni ndey mi ngi fi mais taalibe yi ñoom maay seen ndey maay seen baay. lépp nee loolu lañ leen wax. moom kay dama ne yamale gum leen daan yamale rek. noo yamale dama ne tëdd. Mhm. noo bokkoon ni néeg sëñ maamam ñii ñoo bokkoon ni néeg ak lal yi ñuy tëdd. Mhm. amul daal ab taalibeem ak doomam ak ak rakam ak càmmee ak kum xàmmee. Mhm. ñëpp la sëñ may bootoon yamale leen. kooku moom. mën naa ko ko séeral. ni ak njaboot. kenn lu mu koy layoo yowmal xiyaam ni samay njaboot gi am naa ci moom lenn benn cofeel wala jox nañ ma maanaam wax nañ ma ci lenn mm-hmm. musuma koo teg bët mm-hmm. ci sëñ ma imar mm-hmm. comme ni ma leen ko waxee léegi rek mbokki taalibe yi yéen a ngi teewlu seen télévision Ansar TV ci seen émission yu am solo yi di en route vers le grand magal de Alaaji Serigne May Amar édition 2024 plateau bi teg ba tey ñu ngi ko seq ak euh, Serigne Cheikh euh, Ndam Amar Serigne Cheikh tamit moom it euh, sët la ci alaaji Serigne May moom it moo ànd ak ñun liggéey bi e, am ci taxawaay bu am solo nag ndax moom suñ borom dogal na ne ni ma leen ko waxee sët la ci Serigne May bokk si ci liggéey bi waaye taxawaayam tamit moom it ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm ndax euh, lu jëm ci wàllum euh, média bi moom am na ci taxawaay boo xam ne kawe na suñ jor suñ Cheikh ñi ngi seq ak plateau ki nga xam ne moom tey ji mooy Serigne Baara Loum di doomu Serigne Moussa ñii nag ku leen tudd xam leen ne ci kër sañ may am nañ ko taxawaay boo am solo ñu seq ak sëñ baara waxtaan ngir waxtaan moom ci jeexiti alaaji sëriñ may danañ la jox micro bi xam naa euh, question yi nga xam ne denc nga ko ngir moom ak yeneen contribution yi nga xam ne danga koy def ci émission bu am solo bi kon suñ Cheikh euh, bisimilah. Hmm. ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf euh, Serigne Ale ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu sëñ Baara mi ñu fekk ci palaato bi moom it euh, muy waxtaan waxtaan wu am solo jëmale ko ci euh, Serigne May bi nga xamante ni moo waral jataay bi ñoo ngi nuy nuyu euh, Serigne Mamadi xalifa ab Serigne May ak Serigne Cheikh mi jëwrinam mboolem njabootu ko Serigne May gépp ñoo ngi leen di nuyu leen ziar. comme sëñ Ali comme ni ñu ko waxee rek mel ni ñoo ngi ci waajtaayu màggalu Serigne May Amar gi nga xamante ni moom la ñu amal 17 Muharram ku ne xam ne ne jamono ji yitte ji yëpp euh, mooy bis boobu moo sabab euh, tey ñu taxaw fii ci plateau bi ngir euh, nekk ci waajtaayu màggal gi Euh, ñu fekk fi sëñ Baara moom it muy waxtaan ci sëñ may lu am solo xam naa dinañ ñëw ci question yi euh, sëñ Aliou yi dinañ ñëwaat ci question yi ndax ku ne xam ne ne yaa yor wàllu lu jëm ci wàllu màggal organisation bi yu mel noonu am na question yu ñu xamante ni waajal nañ ko euh, ngir yow dafay nga indi ci ay leeral sëñ Baara dañu ñëw ci li sëñ Aliou wax rek ginnaaw waxtaan wi fekk lu am solo nga di ko def hmm. léegi li ñuy laajte mooy sëriñ may ak ak tabe ndax dañuy wax ne sëriñ may moom ko tabe woon la dañuy wax ne li daan ñëw ci moom daawul fanaan ci moom mu mel ne yéen ñi nekkoon ak moom lan ngeen ci mën a mën a wax. ah sëñ Mary ngeen xam ci moom ci tabe man di toog naa Mbàkke waxtu naan kafe jot nit ñi salaamaaleykum joxe kafe mu joxe njëgu kafe mu joxe ñu saaf kookay saax bam daaraan eggale keneen ma yegg ci war a segg keneen ni salaamaaleykum joxe njëgu sukkar mm-hmm. ñu sukkar ban yeggee ci war a naan ba andi café bi ba ñu naan bay gel kenn ni salaamaaleykum joxe luñ dem marché mm-hmm. ci mbàkke laa wax maa ko teel mu dem ki nga xamante ni nii daa am ba mu demee ba dem marché keneen ki daa dikk di laaj moom ndikki di wut ndimbal di laaj sëñ bi ni gees fekk kiñ joxoon dépasse bi dem na marché sëñ bi ni dabale leen ma ko ñu dabi kañ joxoon dépasse bi ki nga xam ne daa toogoon di wut lu am sëñ bi daal di jëlaat dépasse bi jox ko ni ko def ko si yitte yi soxna si nàmpoon leget gi dellu tooge fii ci mbàgg kon yaakaar naa ni tabe foofu la mën a yem foofu la tàmbalee la ca tege mooy musumaa gis ku fi ñëw di sa soxla soxla sa nga am pajuwut amut ndax bu dee dangaa feebar ñëw fi bala ngaa dem dana la faj bu dee dangay laaj bala ngaa dem dana la jox looy dox dina la wax li nga la nga xam ne moo koy saafara loolu moom mën naa ko ko seeral lu wér bismillahi maa ngi dellu jaaju woy fi ku baax yàlla fajal nu aajo loolaay wa inda dikri saalihiina tanzilu rahmatin gaa yu baaxe neena Cheikh May Amar Kamal nga yaa di docteur yaa mën a faj lor yow